yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax jëgn ci kenn mag baa ngoog fonkal sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama bismillahi mbokk yi bàyyi xel di ñu topp ci leeral xasiida sëriñ tuuba yi xaadallaahu maxtaara lahu noo ngi del siwaat incha allahu ci xasiida gi nga xam ne moo tudd xasiida masas ci ngeen di àndal ci micro bi ci leeral bi muy seen ndongol daara Ibrahima Seck kàddu gi di beekoo fii mu baaxoo beekoo ci Touba Kaolack di ñaan sa borom subhanahu wa taala mu nangul nu ko te nangul leen ko te defal nu dégg ak topp defal nu tawfiix ak taysiir te musal nu lépp luy dog doomu aadama bi musal na ci lépp loo xam ne day dox diggante nit ki ak boromam ba tax du manek boromam subhanahu wa taala di siyaare mboolem ñi nga xam ne ñoo ngi topp jotaay bi te mu yitteel leen lool kon xasida ñi bëgg a nettali ci tafsir bi ci firi ko ci loqatil olofiya muy langu olof yu nu mii ne jëlee ko ci loqatul arabiya mu ngi tudd miimun wasiinun an siinin kon mu doon masas masas miimun wasiinun an siinin waaye xaraf wu ci ne da cee tënk aw bayit miimun gi ñaari miim yéeg yaageeg wa siinun gi waaw geeg siin geeg yaa gi ak nuun geeg xan siinin geeg ayin geeg nuun geeg siin si tooy geeg yaa geeg nuun gépp aw bayit la mu toll ci fukki bayit ak ñaar mu ne bismillah yi na ma sama wax ci ci tudd tur buur bi arrahmaani buur bay xéwalaa kon bépp mi ndeef caadu na arrahimi buur bay ajiram ko soob ci àlaxira allahuma yow sun borom sali yàlla na nga julli wa sallim tey sëlmal wa barik tey doolik barke ala ruuhi sayidina ci ruuhuk sunu sang bi muhammadin turam mooy muhammad fil arwaayi ak ci biit mboolem ruuhi mbindeef yépp waa laa jës di na nga julli ba tey tey sëlmal tey dolli barke ci kaw mu ki nga xam ne mooy sunu sang bi tama yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fii la aji saadi ak ci biir yaram yépp wa ala xalbi jullil ba tey ci biir xolam ba fil qulubi ba tey jullil ci biir xoli mboolem bindéef yi waaye nag xan nii su ko defee da koy jëlee ci man mu mel ni maa ko def ay dama koy dagaan ci yow waaye nag julli ga ni ma taamu mu toll mooy da ngay xool rek bi qadri ci tolluwaayu màggaayug saati ka sa jëmm ji waaye wa taqabal su loolu amee yàlla na ko nangu mi ni jëlee ci man xaasi salaati gi julli di xadari asamati ci tolla ci tolluwaayu màggaayug saati ka sa jëmm ji waaye war fax yàlla na ko yëkkati ilal arsi jëmee ko ci xaras wal kursi yi ak kursi yi allahu akbar mbokk yi salaatu gu am solo la dane maa ngi tàmbalee ci turu yàlla yàlla muy xéewalaa kon bépp mbindeef tey ajiiram koo soob ci yàlla maa ngi lay ñaan nga julli tey sëlmal tey dolli barke dafa indi ñett dafa indi roo ak yaram ak xol ndax nit ki daanaka moy lii rek roo ak yaram ak xol nit ki yëpp lii la mu ne nag jullil ci yaramu yonent bi ak ci ak ci xolam jullil ci yarami mbindeef yëpp ak ci seen xol yi gis nga ak ci seen xol yi ak ci seen yaram yi ak ci seen yi dafa njëkk wax ne jullil ci ruuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy sunu sang bi tur mooy Muhammad waaye jullil ci ruuxu mbindeef yëpp jullil ci yaramu yonent bi tey sëlmal tey dolli barke waaye jullil ci yarami mbindeef yëpp jullil ci xolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam tey sëlmal tey dolli barke waaye jullil ci xoli mbindeef yëpp waaye nag su ko defee day mel ni salaatu gi dama ko sàkk ci yow nga jëlee ko ci man waaye salaatu gi boo koy julli bul ko nattale naa nii lay toll nii lay toll na nga xool sa jëmm ji ni mu toll sa màggaay jëmm ji rek salaatu gi na toll noonu kenn xamul muy waaye nag man mi ko sàkk ci yow nang ko nangu jëlee ci man nang ma nangul gii julli nang nangu ma nangul gi julli waaye booy nangu julli gi itam jëlee ko ci man nanga xool ba tey ci tolluwaayu màggaayu sa jëmm ji waaye boo ko nangu ba noppi nga xam ne xool nga ci sa tolluwaay màgg ak jëmu ji nga nangul ma xasida gi su paree nag na nga ko yëkkit nag jëmee ko sa xaras ki yow yàlla ak kursi yi mu ne xasida gi moo tudd nii miimun wasiinun an ziinin moo tàmbali fii malaktu mawlida nabi min asasi kitaabati wa qaadali min jamsasi kitaabati kon xam naa ba mu koy taalif mooy atum sas mooy at mi nga xam ne mooy mille trois li nga xam ne mooy quarante ci gàddaay yonent bi salaay salaam lu war sëriñ mooy at mi nga xam ne ci la sëriñ Murtala al mbakki yu radiyallahu anhu wa nafa bi barakati amin ci la gane jamono mu ne malaktu moom loo naa mawlida nabi eh, juddug yonent bi bin asasin li ko tàmbalee asas kitaabati sama mbind waxaadate mat na lii jëmee ci man muy mbind moomu xéewal yi ak barke ya min jam sasi ci jam sasi nee na sama yitte bi mu commencé gàmm bi mu commencé gàmm mooy asas at mi at nga xamee ne ci la Maamoor Anta Sali wàcc liggéey at ma ca tegu Maamoor Anta Sali mi ngi wàcc mille trois cent mille trois cent un nag ci la yoonu muri taxaw ci weeru koor ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar nee na ci laa commencé gàmm nag boobu laa commencé gàmm asas laa commencé gàmm lu jiitu loolu daan na gàmm waaye nag gàmmu dëgg-dëgg ci asas la ko commencé nee na li ma bind lépp ba ni ngeen may gëj gisee ci saaxir man sëñ Touba diir ba may nekk njaarim gànnaar yëpp dama daan gàmm ba may nekk ci gij-gij sax dama daan gàmm nee na moom loo naa juddug yónente bi li ko tàmbalee asas ci laa ko commencé di ko màggal dëgg-dëgg màggal nag lu ma bindit rek damay jëmee ci yónente bi sallallahu alayhi wa sallam saa su gàmm ñëwee lépp ci yónente bi rek waaye nee na mboolem xeeti xewal ak barke gàmmu ya ak ngëneel ya yëpp suñu borom wamatoon dama ko ci jamsas in risin taaxu gàmmu daal maa ngi ko jotee ci jamsas laa xam ne dëgg-dëgg daal solo gàmmu suñu borom subhanahu wa taala la ma doon gàmmu yëpp tàmbalee ko ci asat 1301 ba 1343 xéewal yëpp suñu borom subhanahu wa taala wamatoon dama ko yëquudu dana ma lii jëmee ci man moom yàlla maa loo xam ne laa yëkkoonu du nekk li basar ñeel benn mi def mawlidu afdalil baraya nga nekk jamono ki ngeen ci mbindee fi yàlla min bu sar ci ay mbégte nee ne màggal gi mu doon màggal juddug yonente bi te mooy laylatu yab bi nu mu ko waxee ci diwaan ya moom sëñ Tuubaa mooy fukki fan ñaar ci weeru rabiul awal fukki fan ak ñaar ci weeru rabiul awal nee ne màggal gi may màggal juddug bi di ko màggal ci biir bind ay xasaayit di bégloo yonente bi jëmee ci moom te yesu rasulullahi xatti bi mawlidi yo doomu la naa bisiran ci fi xayri mawridi ya fi xayri mawridi nee na màggal googu ma koy màggal nee na moo may womatal loo xam ne benn mbindeef amut ko te lépp ay mbég la lépp ay mbég la màggal gi ma koy màggal rek moo may loo xam benn mbindeef amut ko ca boroomam te nee lépp mbég la min bu sar moo tax mu ne yëqulu dana womatal lii jëmee ci man maa loo xam ne laa yëkkoonu du nekk li basar ñeel benn mbindeef makkan moo lay womatal yàlla wala mu ne déedéet mawlidu afdalil baraya juddu ngën ci mbindeef màggal gi ma koy màggal moo may womatal loo xam ne benn mbindeef mosut ko am te dootu ko am min bu sar te lépp ay mbégte la mu ne xuttu wa mat naa xalami samay xalima min yawmi asura ah, li ko tàmbalee ci bisub asura ila nabi jëmee ko ci kañu solo ko wa rasuli ak ndaw la yàlla yónni ala allami ala allami ka nga xam ne mooy champion ba mooy ko xam ne ku am mandarka la mooy ku siw daal ci gàttal ku siw ala allam mooy ku siw koo xam ne bu ñu ko tuddee ñëpp xam ko nee na jël naa sama xalima yëpp li ko tàmbalee bisub asura mooy bisub fukkeel ca tamxarit ba te mu wax ngëneel yu bari bari yoo xam ne dañ koy def boo demee ci masaaliku ko nga ko ca fekk mu ne wamman naa samay xalima ci bisu fukkeelu weeru tamxarit te fukkeelu bis ba jëmee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ku ñu jox xam-xamu nubuwa mooy ndaw li yàlla yónni waaye mooy ku si ko boo ko tuddee ñëpp xam ko waa jaxtu jëmale naa bil xatti ci bind li yow mi xarafa ci bisu xarafa wala nga ne min yow mi asura li ko tàmbalee yow mi asura li yow mi arafa bi bisub arafa hmm? baabal maxrifa kay buntu maxrifa muy ak xam yàlla nee na jëmale naa sama mbind li ko tàmbalee asura bisu fukkeel ba muy weeru tam xarit bu duggee fukkeelu fan ba ci laa jël sama xalima di ko jëmee ay bind yoo xam ne yëpp mooy di wax njëriñu li nga xam ne mooy tam xarit waaye njëriñu li nga xam ne mooy bisub taxawaayu arafa njëriñ yi ci nekk. moo tax ma ne jëbale naa sama mbind lu tàmbali bisub asura ba keroog bisub arafa xarafa mi nga xam ne mooy buntub maxrifa maanaam xam nga taxawaayu arafa dafa bëri secret yu ci nekk moo tax xaarifiina billaahi yëpp dañ ko dañ koo xamoon di ko màggal wormaal ko ndax li ci yonent bi ci ay hadis di wax ngeen li ci nekk ci koo ne woor na ko ci koo xam ne le joxe na ci aw ñam ci yoo xam ne jàng na ci alquran yëpp muy tiyaaba yoo xam ne kenn xamul muy toll moo tax waa joxtu jëbale naa bil xatti ak mbind min yow ko tàmbalee ci bisub ansora li yow mi ba sa bisu taxawaayu arafa ba baabal maxrifa kay buntu maxrifatu billaay te mooy ak yàlla ku bëgg a xam boroomam man ngaa dékku ci bis boobee nga xam ne mooy bisub taxawaayu arafa bis la boo xam ne képp ku koy màggal da nga am ab ma buntub maxrifa maanaam xam nga taxawaayu arafa dafa bëri secret yu ci nekk moo tax xaarifiina billaahi yëpp dañ ko dañ koo xamoon di ko màggal ko ndax li ci yonent bi sallallahu ci ay hadis di wax ngeen li nekk ci koo xam ne woor na ci koo xam ne le joxe na ci aw ñam ci yoo xam ne jàng na ci alquran yëpp muy tiyaaba yoo xam ne kenn xamul muy toll moo tax waa jox fa jëbale naa bil xatti ci ak mbind min yow mi ansora li ko tàmbalee ci bisub ansora li yow mi arafa ba sa bisub taxawaayu arafa ba baabal maxrifa kay buntu maxrifatu billaahi te mooy ak xam yàlla ku bëgg a xam boroomam man ngaa dékku ci bis boobee nga xam ne mooy bisu taxawaayu arafa bis la boo xam ne képp ku koy màggal da nga am ab maxrifatu billahi saaltu ñaan naa rabbi sama borom bi jaahil muntaxaa ci daraja ku ñu tànn ka wa bihima ci ñaar yooyu muy bisub taxawaayu arafa ak bisub asura arafa mooy bis bi nga xam ne moo jiitu tabas ki mooy bis bi ñu war a tabaski bis bu ko féetee gannaaw boobu mooy bisu taxawaayu arafa xaasuraa nag mooy bisu tamxarit mooy bisul fukki ba ñaari bis la yoo xam ne yu bëri ngëneel la mu ne ñaan naa sama borom ci dara jàkk ñu tànn ko te mooy yónent bi wa bihima ci biit ñaari bis yooyu xablu ci lu jiitu falaaxan ak texe watuqun ak ragal yàlla ñaan naa sama borom ci ñaari bis yooyu ci seen dara ñoom ñaari bis yooyu ma am ak texe ak ragal yàlla yasara dana yombalal lii ñeen ma alqadiru yàlla muy ajaam kàttan ji kullu na ma xam diddihaa kulla sana yépp at ne yàlla mi xadir mi nga xam ne tëliwul dara dana ma yombalal wépp yiw ñaari bis yooyu saa yu ñëwee daf ma yombalal wépp yiw daf ma ko yombalal lépp lu rafet rek daf ma ko yombalal waaye daf may aar wali seenu safaan ñoom yiw yooyu wali seenuk safaan mooy xam nga bis bu ne ni mu amee lor noonu la amee njëriñ fu ne tam xarit li muy bëri bëri nga ne noonu la amee ay yoo ne dañ la koy moytuloo bisu Arafa itam bëri bëri njëriñ noonu la amee ay safaan yoo xam ne dañ la koy moytuloo yoo xam ne boo ko ci defee baaxu ci loolu nag boo demee ci Sëñ Suhaybu Mbàkke moo la koy moo tax mu ne wasaane ni ñongal na ma an diddi xaa wali seenug safaan muy ñaari bi yow yàlla aar na ma ba safaan yooyu mucc naa ci kulli sana ci bépp at dàq na ilaahi sama borom bi xadari saati tolluwaayu jëmmam ja li xad li saati mu daw jëm ci furut sama jëmmu addura lor addura lor xus wékk naa moom yàlla bi saati ci jëmmam ji sama lépp waaw sama lépp dama ko wékk jëm ci borom bi subhaanahu wa taala nee na saa borom dàq na ci kattanu jëmmam ji mu daw jëm ci furut sama jëmu ji ak lor moo tax mu ne damaa jël sama jëmu ju wékk ci moom nga xam ne léppam kon da ko wékkoon ci borom subhaanahu wa taala xustu muslu naa mooy wékk naa rek bi saatillahi ci kattanu jëmak yàlla ji min xayri yi daaw ci lu dul ngërëmam wajaadate tabe na lii jëmee ci man allahu yàlla bi bisri ma ci mbég moo xam ne xaddaaxu dogal la ko moom borom bi subhaanahu wa nee na wékk naa sama jëmm yépp teg ko ci kàttanu jëmug yàlla ja ci lu dul ak ngërëmam waaw lépp lu dul ngërëmam rek muslu naa ci yàlla mu muccal ma ci ci wéedu gu ma wéedu ci moom waaye yàlla tabay na ma mooy may na ma mboolem la muy dogal yépp la ciy juddoo yépp ay mbég lay doon waa lu naqari dootu ñëw ci man na wetu yéene naa sukurallahi cant yàlla mil al ardi bu toll ni feesuwaayu suuf ma asama ànd koog feesu feesuwaayu asamaan xayra sukoorin gën ci ak cant goo xam ne yur dana ko gërëmloo moom yàlla na yéene sant yàlla cant goo xam ne day fees asamaan fees suuf waaye ngën ci cant goo xam ne dana gërëmloo borom bi subhaanahu wa la sakari ni sant na mosul aradina yàlla muy borom juróom-ñaari suuf wasama ak asamaan sukuran cant goo xam ne xataru sima bindees na ko la daa ax yi la daa ax yaari yi fa fam ya nee yàlla daf maa santal boppam moom muy borom yi suufi juróom-ñaar di borom asamaan cant goo xam ne da koo bind fa ña nga xam ne ñooy ay tànneefam te mooy mboolem aqtaab yi mboolem nujjubaaw yi mboolem nuqubaaw yi yëpp ñi nga xam ne am nañ gërëmal seen borom subhaanahu wa taala nee na cat na cat goo xam ne suñu borom da koo bind foofu. yan xaada yan xaadu dana wamatu lil ansi jëmi xaras walil kursi yu ak kursi yu xattu yëddi binduk sama loxo maxasuma ànd ko tur wa alxafiya may aji nëbbatu nee ne sama mbindum loxo ak tur wa nga xam ne mooy turu nëbbatu kenn xamut mooy ismulaay ansam nee na léegi day wommatu nag jëm xaras ak kursi yu sama mbindum loxo lu ma bindit rek ak turu ismulaay ansam lay àndat ba noppi dem xaras ak kursi yu kenn ma ci dara yan xaadu nunu mu tawaax la nawaytu yi ne naa mi nga xam ne mooy ki ba moom min jamsasi euh, min jamsasin ci jamsas ndax waqaada womatal na liy jëmee ci man fat fatluhoo ngëneelam min assin li ko tàmbalee asas ba jam sas yéene naa sant sama borom mi nga xam ne mooy kii moom ndax lan li ma taalif li ko dalee asas 1301 ba 1343 lépp ay xéewalam mi ngi bàbbeeku di ñëw ci man ngëneelam ñëpp mi ngi koy bab bi rek muy ñëw ci man moo tax ma yéene ko ak cant moo tax ma nawaytu yéene naa sukkura maalik yi cant yàlla mi ma moom min jam sas ci jam sas ndax woo womat na li jëmee ci man fatluhoo ngëneelam min asasin la ko tàmbalee asas ba jam sas yépp woomat na ngëneelam jox ma moo tax ma yéene ko cant ci waxtu ne katta ba bind na allahu yàlla tabaraka moom mi nga xam ne barkeel na wa taala tey aji kawe ne anna haatayni xasidatayni naka ñaari xasida yi naka ñaari xasida yi mutaalliqataani ñaari way aj lañ bi saaqayil arsi ca peeruk xaras wal kursu yu ak kursu yu bi leen fisaali ci luru ñuy focc muy ak dog te walaahu yàlla wakiilun aji seedal ala ma naqulu ci lii nga xam ne wax naa ko mu yàlla ci boppam moom mi nga xam ne barkeel na tey aji kawe moo dogal bind ca lawhul mahfuz te dootu ko far mukk ne ñaari xasida yi dañ leen aj ci peeru xaras ak kursi yu te dootuñ dogati mu ko maanaam boo doon misaal ne xaras dafa am ay xeet ay xeet mooy bant yuñ fa samp wala ay weñ kursi yu da ko am dañoo jël ñaari xasida yi takk ko ca te dootu mos a dogati ngelaw du ko dindi safara du ko dindi leer du ko dindi dara du ko dindi te ñu leen takk ca roon aras ak kursi yu ñaari xasida yi beneen bi ba tey mooy bi jàngoon barki dee mooy mii mun wasinun an sinin moom it mu ngi tàmbaloon baatam malaktu rek waaw malaktu nuuru lisaanul arabi mooy xasida googu mu leen wax ne yàlla moom loo na ma leeruk làmmiñu arab ak xasida gi lay wax ne ñaari xasida lañ yoo xam ne suñu borom mi ngi leen wékk ca xaras ak kursu yu nga xam ne dootuñ dogoti mukk nga xam ne dara mënu ko fay jëlee dara ñaari xasida yëpp ñu leen wékk foofu loolu waxoon na ko ci xasida bu suraana jam moo tax ne kataba dogal na allahu yàlla mooy kataba bind na allahu yàlla tabaaraka moom mi nga xam ne barkel na wa taala day aji koy bind ko far ne an haatayni alxasidatayni naka ñaari xasida yi mutaalliqataani ñaari way aj lañ bi saaqayal arsi ci peeru aras wal kursi ak kursi yu bi leen fisaale ci lu dul ñuy focc muy ak dog te wallaahu yàlla bu ngeen ko weddi wakiilun aji seede la alaamaa naqulu ci lii nga xam ne wax naa ko xaan xuma wulis ñaari xasida yi abadan ba faw lépp suñu borom subhanahu wa taala seede na ko bu fekkee weddi ngeen ko itam yàlla moom seede na lépp gis na lépp yàlla na yàlla defal dégg topp tawfiq ak taysiir wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu